Madame la ministre, mes chers collègues, je vais commencer samay kàddu les 63 les 73 parlementaires de la 14e législature Devenant nombre dans l'histoire politique du Sénégal Assemblée nationale le am comme maa Bindokel, leen di ndokkeel yéen assemblée ak coalition de ngeen mais di ndokkeel mention spéciale visionnaire l'homme de la parité le président Abdoulaye Wade ndax nii sama parti di seen parti yéen ñëpp yéen jigéen ñi bu ñu leen formation politique yi la coalition dingeen ngeen gaaw a àgg bii kon jaaraama président Abdoulaye Wade may ndokkeel jigéen ñi Sénégal yépp ndax ñoom ñooy yar ñooy téye góor ñi kon ñu ngi jaajëfal jigéen ñi Sénégal yépp ma di ci dindi nag les femmes de la diaspora ñi diaspora di ay jàmbaar di jigéen ñi ma wax leen ñu leen li ngeen di def ci kër yi loolu la ñuy def ci réew yi mu nekk te nag bitim réew amul bon de parce que foofu ku fa jël nit di ko liggéey da nga koy fay te amoo salaire boo ko fayee kon yéen am ngeen possibilité pour am ay bon mais les de la diaspora ñoom ñooy liggéey seen ménage ba pare boole ko ak di liggéey huit heures de temps ci usine yi kon ñooñu war nañ leen jaajëfal parfois nga gis ci jigéen joo xam ni kaaru guddi la yam balaa mooy dem di liggéey vingt deux heures day préparé reeram ak léppam tegal la fi kon ñoom war nañ leen jaajëfal bu loolu jàllee madame la ministre may wax ni nañ leen bàyyi xel jigéen ñooñu ministre des finances et du budget am na gis nañu tam keroog en commission

konte nañ ñooñu ku leen jàppale ñu dem kon nañ leen jàppale nañu bàyyi xel tam les femmes rurales jigéen ñu nekk ci kaw gi généralement programme yi dafay arrêté rek au chef lieu de département te loolu ñoom pour ñu jot ci lu jafe lay doon kon nañu wàcce programme yi ba ak si commune yi parce que loolu moo tax loolu mooy mën jigéen ñi nekk ci kaw gi mën a jariñu ci financement yi nga xam ne nii gouvernement bi ñu koy def di wax ni le CPF ah ñoom it war nañ leen yokkal mooy pour ñu gën a mën a entretenir les jeunes filles yi nga xam ne ñoom lañ leen dénk te itam foofu ñu bañ a yam ci département yi mais ñu fexe ba mu àgg ci communes yi parce que jigéenu àll bi soxla nañu lool ku leen jàppale. te comme ni ma ko waxee bu yemee ci département yi ñoom du ñu am information sax ni financement génn na te coono yi ñu ngi encore ci kaw gi nañu leen di bàyyi xel ndax ñoo ëpp ci population bi wax naa ko keroog bi ñu ñu jëlee alalu mi yamale ko ci ñi nga xam ni peut-être du ëpp réew mi di daaw a jëm ca kanam kon nañuy bàyyi xel waa kaw gi ci wàllu daara yi gis nañu ni président dajal la leen démb ñu day wut kuréel goo xam ne nii moom la leen di dénk wax naa ko bërki démb bi ministre de l'éducation bi jàll suñu bëggee retirer xale yi ci mbedd mi nañu fexe ba li leen di yóbbu ci mbedd mi parce que généralement ñi nekk ci mbedd mi mooy waa daara yi nañu fexe ba li tax ñu leen di yóbbu daara ñu dugal ko ci école publique yi loolu mooy moyen bi gën a gaaw ah man de loolu mooy sama gis-gis te jàpp naa ni bu ñu defee loolu ak ay effort yu tuuti rek xale yi dem ci mbedd mi dana wàññeeku konte nag maa ngi njukkal jigéen ñëpp di leen ziare di leen wax jaageen jëf merci cher collègue Astou Ndiaye